festival bi euh, tax na ba histoire yu ñaan yi ñu xam ko ñu mën koo bind mën koo tënk mën koo dugal ci histoire générale du bi nga xam ne professeur Iba ci Thiam yàlla na ko yàlla xaaree jana te baal ko ay moo ko jiite woon. te euh, ci commission boobu dañu cee dugal parce que dañ cee def liggéey boo xam ne liggéey bu am solo ndax histoire yu ñaan kaa bind donc ñun ñoo ko bind euh, grâce au festival pencum ñaan yi donc muy lu am solo ndax xam nga ni. fépp fu ñu daan jàngale histoire du Sénégal dañ daan fàtte ñaan mais léegi yaakaar naa ñaan yi kenn dootu ko fàtte waaye li des mooy euh, comme bind nañ histoire bi ba dugal ko ci tom yi nga xam ne ñoo génn li des mooy ñu jéem a vulgariser culture ñaan yi maanaam commencé nañu quatrième édition bi ak euh, culture mandeng yi euh, cinquième édition yi ñu def culture maanaam cosaan ak aada wu Pël Habobe yi danañ continuer ak yeneen communauté yi nga xam ne ñooy dund fii si biir ñaan yi pour vraiment mettre en valeur la culture du ñaan